yàlla na yàlla yërëm aji dawlu yi léegi nag lan moo ñu dese suñu diggante ak ñoom ak ñun ñi nga xam ne ñoo fi desandi mooy jóg leen tuub tuub jot na xam nga dañuy wax naan jóg leen waaj waaj jot naa si jouru koor yi mooy jóg leen xëdd fi mu nekk nag waaj jot na ku nekk si yoboo xam ne xamoo tey la xamoo suba la ndax kat macha allahu taala yàlla li mu wax ne fa iza jaa ajaluha la yastaaxiru saa wala yastaqdimuun egsi na ba pare kon nag li des mooy ñun ñëpp ñu góor-góorlu àndandoo jël àdduna macha allahu taala def ko muy nu nu nu nu nu waa ji nettali rek xale bu góor bi nee na macha allahu taala dafa gis xale bu jigéen bu rafet macha allahu taala bu taaru mu daal di dem wax ak moom daal di dem yabal baayam ni ko pàpp diw mii ma gis daal xale bii ma gis bëgg naa ko bëggeel goo xam ne il faut nga dem labatil ma ko papa ji dem bi papa ji eggee egg rek daal di koy gisaan ne la ilaha illallah kii du kii du soxna xale daal di woo doom ji mu ne ko kii kay moom du seet naa ko waaye du jabaru xale kii man mii sa baay maa koy takk xale bi ne ko papa yow dama laa yónni loolu mënu sotti kon nañ dem ca kilifa gi nga xam ne moo yore gox bi yëpp mu àtte maak yow ñu dem ca kilifa ga mu ne ko man kat sam papa damaa bëgg a takk soxna yebal ko mais sam ba mu demee soxna sa daf ne moom kooku euh, soxna mag la du xale moom moo koy takk waa ji daan ne ko indil xale bi ki nga bëgg a takk xale bu jigéen bi na ñëw bu ñëwee bu fekkee ne moom yow la bëgg ma may la ko bu dee sa papa la bëgg ñu xam ne góor gi la bëgg ñu indi xale bu jigéen bi xale bu jigéen bi bi mu nee tëll kilifa ga itam dem mu daan ne kii kat waxuma leen waaye yéen ñaar ñii ñëpp amul ku ko ciy takk ndax yéen ñaar ñëpp kenn yoyowu ko si kii kilifa la jabaru kilifa la kon man mii di kilifa gi ngeen ñëw doon kalaame si maa ko war a jël ah ñu ne waa xëccoo ba euh, jàppal bàyyil ñu ne lii daal nañ dem kon ci ki nga xam ne nag moo yore dëkk bi yëpp ñu laaj ko lan mooy pexeem bu doon ne tey si àdduna ni ñu koy melale ñu ne tey dañuy dem si président de la république ne ko ah kon président ministre bi nee na nàngam gouverneur nee na moo bëgg ministre bi itam nee na moo ci teg loxo léegi nag yow président de la république yaa ñu war a àtte xale bu jigéen baa ngi noppi rek ak taaram ku ko gis ak xëm xale bu jigéen bi bi ñu demee parce que ba wax ji metti nag ñu laaj ko ñu ne ko léegi yow yaay soisir koo ci bëgg rek léegi ku mu mën ci doon rek ñu may la ko xale bu jigéen bi bi ñu ko ko waxee xale bu jigéen bi ne léegi daal man damay daw man damay daw athlète laa léegi képp ku ma ku ma jot rek yow yaay nekk sama borom kër préparé leen nag léegi nag ñu daal di def benn président ba taxaw ministre ba taxaw gouverneur taxaw papa ja taxaw doom ja taxaw rek xale bu góor xale bu jigéen bi ne fiddat commencé daw ba muy daw di daw di daw di daw ba si yàgg rek ñu gis benn pax bu yaatoo yaatoo yaatu xale bu jigéen bi na lay na cëpp ci biir pax bi ñoom ñëpp ñu ñëw sëmbaxloo nit pëtëx ca biir pax ba dugg fa xale bu jigéen bi jóg taxaw ni leen man mii ngeen doon dàq man mii ngeen doon bëgg yéen ñëpp man maay àdduna yéen yéenay doomu aadama man àdduna nag nii rek laay def ak yéen ba ngeen xëy dugg ci biir bàmmeel kon mbokki jullit yi mbokk téléspectateurs yi xissa bii boo gisee ñu indi ko mooy képp ku topp si àdduna di daw amoo foo jëm doo mus a eggali say projet bu dul xëy rek na tëmbax ci biir macha allahu taala muy bàmmeel fa la ñuy mujj ñun ñëpp fa nga kon ñun ñëpp dañu xam ne dee gi moom mu ngi ñuy dàq te yàgg-yàgg dinañu jàpp kon nañu waaj